Thank you. على المنصور الله المنصور الله المنصور ko nangul jombul du ñàkk lu sell lu ci am yow mi sell yàlla na nga ko sellal jombul du ñàkk lu mata di lu ci ne yow mi mat yàlla na nga mottali ñoo ngi nuyu ñëpp di jiital ci nuyoo bi ñoo ngi jiital ci nuyoo bi Chérif Ibrahim Aydara ak tijaani ñoo ngi lay nuyu bu baax di la ziyaara di la ñaan yàlla nga nongul ñu suñu ziyaar te dugal ñu ci sa biir ñu toog fii ñépp ñu la sopp lañ koo dajeel rek sërif dana ñëwa koo dajeel mbaa sërif tukkiwu la koo dajeel baa gëjoo gi sërifa waaye déedéet rek waroon naa tukki waaye mu fomm lépp ndax almaru kama faala la kama xaala almaru nit kama faala lu mu def la kama xaala waaye la mu wax taxawul te moom mii moo waxoon fii daaw ni ustaas Babacar xew-xew bii nañ ko jàpp suñu màggalee àjjuma ja ca tegu mu bàyyi ko xel lool màggalug ren di alxemes àjjuma da cay tegu day jàmp da cay sës lool mu ni nañu xool kon ba ca tegu ba jàpp ko muy la 25 kon la mu waxoon ndaaw dëggal na ko ren almaru kama faala la kama qaal Sénégal a bari bakkaar senegal ñoo bari bàkkaar yaa ayuha alladina aamanu lima taquluuna ma la tafaaluun kabura maqtan an taqulu ma la tafaaluun te dañuy wax rek te def kon Chérif ñoo ngi lay nuyu bu baax di la ñaanal yàlla yàlla na yàlla defal la li nga bëgg la ma góor ga waxoon rek laa lay wax ñett ñett ñett yam ma waxoon ma doom asamaan muccul ci maxa ma ne ko ah kay mu ne ma yàlla na nga mucce noonu ci say noonu kon sër fi yow na nga mucce noonu ci say noonu yaa bari noonu waaye yàlla na nga mucc mu ne ma doom ndax yoon àggut ci dëkk ma ne ko ah kay mu ne ma doom nga àgg kon ne ma doom ndax suuna sakkanul barkeelul ma ne ko ah mu ne ma ndax buñ koy jiixi xale bu ndaw lañ koy yen cig leget wala ci këll leg léeg seen aada ya sax buñ ne dañuy wax du wax ba ba muy àgg ca tool ya waaye buñ ko fat faraasoo suñ ko faraasoo dox tuuti mu taw ñu baxaw ballar ñi bayaat àgg foo xam ni bu machine dootu ca mën a dugg mu pal pal yàlla ji taw mu pepp feeñ su na ñor ñu góob suñ koy delloosi ci ay saret lañ koy sëf mu ndax loolu barkeeloo la doom ma ne ko ankay ah mu ne ma yàlla na nga barkeele noonu kon sërif yooyu yàlla na nga barkeele noonu ñu ngi leen nuyu bu baax sërif Aydara di la wàccee sa wàccuwaay di nuyu imam bu baax Ibrahima Ibrahima Sakho ñoo ngi koy nuyu suba ci kaamil bi moo ko jiite wax fi wax ju rafet jàng fi xat mu ñaa fi ñaan goo xam ne tabaarakallaahu yàlla ñu ko yàlla boole nangul imam ñoo ngi lay nuyu bu baax suñu la nuyoo. nuyu nañu mboolem imaam yi nga àndal ndax nee nañ mooy imaamu ratib bi imaamu ratib nag moom buñ ko nuyoo defe naa war naa yóbbaate yeneen imaam yi ak bilaal yi de ci suba lu ma waxoon naayim wala naayib ci suba na lu ma waxoon de defe na naayim la wala naayib gars yi moom naayim rek lañuy wax kon ñu ngi lay nuyu ak ñi nga àndal ñëpp di nuyu bu baax imaam Souleymane Diamanka fanaa yéen tamit yéen a ànd ñoo ngi lii mu man daaw wala daaw jéeg wala daawaataati jéeg at mu ñëw mu gën koo man du moom am na ku ne ci suuf boo yaakaaree ni yow it juum nga yow la juum nga kii toog la muy suñu yaay naar bii toog li may wax nag lu ma xam la ndax yàgg fa la ndax ñaar fukki at du ñaar fukki fan waxoon naa ko fii daw seede nag bañ na ndem si yàlla sax wax day tungoom seedeem moo yow li nga wax ku la seede ah diw de waaye ma nga ca bàmmeele boobu wóorul wax day tungoom seedeem te li may wax kase mi mën na maa seede ñaar fukki at ci suufu ron soxna sii ñuy ànd di doxal daayira ca Pikine di def lu mel nii suba kaamil ngoon ñu daje xale yi daayira ahibayil xalifa ñoom maaw ñooñu ñu jàng tey siir def tuuti am daax suñ paree ma waxtaan ñu togg suñuy cere lekk suñu yàpp ñibbi muy màgg ba agsi fii lépp gën gannaaw yàlla ak Babacar waaye du yow suñu yaay ji la soxna si naar Babacar de mu wax nee na su waroon a dund juróom-ñaar fukki at bu waroon a dund juróom-ñaar fukki at wala juróom-ñetti fukki at yàlla jëlal fukki atam moom Babacar jox ko suma yaay ji mu wéy man ma toog moom man ma toog moom mu wéy wala moom mu toog man ma wéy nee na ay atam su ko mënoon a wàññi jox la ko yow dana wàññi ay atam jox la ko ndax nee na lii mu man gannaaw yàlla ak yow la dama romb benn ay mbooloo ñu toog ñu ne ma kaay imaam ma ñëw ñu ne ma dégg naa ñu ne barke ndey wala wërsëg barke baay ah, wërsëg ndey man leen waaw xam nga de en général dafay am yoo xam ne dañ nit ñi dañ koy wax ba yàlla fekk si leen ca mën naa ba a nekk nag ndax wërsëg moom yàllaa koy joxe ah. wallahu yarsuqu man yasha waaye wërsëg mën naa ñëw te barke du ca am kon boo amee wërsëg mu am barke gannaaw yàlla ak suñu yaay naar ji toog la yaa naar yàlla na yàlla gën a guddal sa fan Babacar wax na ko daaw wax na dëgg nee na Chérif ndax sama yaay ji billaahi su ma koon a dem Makka dinaa ko paasal mu dem Makka waaye tànkam yee ma jaaxal yóbbu nga ko Makka yaay naar ku baax la wax naa ko imam Sakho ci suba defe naa de nee leen Sénégal yëpp ajaan naar bii defe na ni man rek maa fi am xam-xam xuloo naag oustaz ba xaw koo sax saaga gannaaw yàlla ak man oustaz ba wax mu ne ko xamoo dara laajuma la digluwuma la oustaz Ousmane loolu laay diglu lu mu la ci wax noonu la xamoo dara yow kon ajaan naar ñoo ngi lay gërëm ku ma bëgg la ku ma sopp la Babacar du ma wolu dul soxna si mi ngi lay nuyu la may wax kon yaa naar ñoo ngi lay ñaanal yàlla yàlla na nga dund téeméeri at yàlla am na ko yàlla nañu ko yàlla def ci yow Babacar kontaan na ci yow ni Babacar kontaan na ci yow noonu lañ kontaan ci yow ndax xam nañ la ci Alaaji Idrissa Ndoy ba tey loolu yàgg na lool kon Ndiaye yàlla na yàlla fay la noo ngi nuyu itamit xale yi koñ bi te Assane Seck jiite leen ah Hadji Souleymane Balma Hadji Souleymane Niang ñoo ngi koy nuyu bu baax. kii bi ma yor moom ma yóbbu waaye titre foncier la xaw ma kan la am na ko koo waxoon sànq ci bëccëg yow de nee na Babacar titre foncier la ñun ñàkk nañu ko nee na waa benn barak jël nañ ko kon xale yi koñ bi ñoo ngi leen di nuyu baax di nuyu waa tabaarakallaahu euh, Baye Sibé Sibi Sibian ah. Baye Sibi ñoo ngi koy nuyu Babacar bu amee kër gi gannaaw yàlla ak moom la ndax moo ci taxaw ba Babacar jot ci kër gi ah. Souley ah. waa kay su lay siisee ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu oustaz gu xadra biñ fi def am daax yiñ fi def waxtaan wiñ fi war waxtaan ku xool sa moroom xolam sedd sax yooyu yëpp la ca nekku tuyaaba yal na ko yàlla góor gi yal na ko yàlla sotti góor gi xasan jàll fa mu tëdd ci biir bàmmeelam yàlla mën na ko yàlla ñu ko yàlla defal la góor ga la la la la ki waxoon euh, sëriñ Moustapha Mas sëriñ Moustapha Basiru Mbàkke la mu waxoon ci tiib moo am tiib Saalum dañoo jógee Mbar ci vacances yi jaar di dem mbar jaar fa gis oto yi taxaw ci ba buntu jàkkee ñu xam ne góor gaa ngi fi ñu jaar fi nuyu ko fu ngeen jóge doom Dakar fu ngeen nekk ah institut islamique la ñuy jànge de ah kon de xanaa arab ak alxuraan ngeen di jàng. waaw fu ngeen jëm mbar ah doom fu ngeen toll ci alxuraan fekk am nañ ko ñu tàggat ci gaa yi buñ ne fu ngeen toggal ci alxuraan rek ko waxal ah mën nañoo de ah ku may jàngal kañ wax mu dal di yuuxu def. jàng mu neex ba mu paree mu xëcc saag ba boxam lu am solo jox na ay taalibi di dinañ soxla lii ñu ne ko waaw mu ne ma doom ma léebu leen a ñu ne ko loo bëgg a wax góor gi mu ne boo amee gan nga reyal ko xabbon boo amee gan reyal ko xabbon ndax i ndawal ga dana ko jeexal ñu ne ko mbàkke déedéet ah, doom xam ngeen looloo ñu ne ko déedéet mu ne mooy soxla boo mën a am jël alxuraan jàng ko bu ko yàlla nangoo yàlla soxla ba dana alxuraan dana ëpp soxla ba am déet su ma Babacar gane si woon ma reyal ko xaboon moom dong lu mën ci ndawal ga kaamil boo ko jàngee alxuraan ngir benn soxla bu yàlla nangoo kaamil ba dana ëpp soxla ba kon imaam kaamil bi nga fi jiite tey ñu jàng ko bu ko yàlla nangoo dana ëpp góor gi kon yàlla ko yàlla nangu waxutuma kaamil bi xadra bi nag bu ko yàlla nangoo doo ëpp góor gi togg yi nag bu ko yàlla nangoo doo ëpp góor gi li fi sëriñ war a waxtaan bu ko yàlla nangu dëpp góor gi mais xanaa nag lu mu bon bon bon yii ñu fi def yàlla dana ci na am bu mu nangu te yàlla nangu benn nag te yàlla nañu ko yàlla nangul Babacar jërëjëf yal na yàlla fay la ku fi ñëw daf laa fey si bor waaye lebal si wu la li ngay daj kenn du ko daj ci nit ñi li ngay sonn ci soxla nit ñi kenn du ko sonn ci soxla nit ñi maa ngi koy wax sànq suba man léeg-léeg rek poste bi xaw a kii ma ne Babacar dama laa gëj ah oustaz foo ne ah oustaz nga baal ma de mu am nga orange money man kon nag man orange money man vraiment du ma koy utiliser man daal wari rek laay utiliser waaye orange money man dañoo yomba sàcc yónnee ma ko wari waaye daal bu ma yónnee wari ba bu ma ko xoolee ma demee tabaarakallaahu yal na yàlla barkeel la te wóor na ma ni noonu may wax ndawalu guddi la ku làmb rek da ngay defee ni yow rek a daj noonu may defal lay jaar ku ne wax nañ ko xadra bi passé wax wax nañ ko ah, conférence su xale yi Ahiba al dañ daan tontolaan fu ñu demee Tiwaawoon mais kër la jënd jox leen kër daayira ahibayil xalifa la daayira ahibayil xalifa moomuñu kër gi taalibe jullit moom moom kër gi bu gàmmu jotee ku bëgg dugg na dugg bu sottee ñu tiima ko yàlla yàlla na fay la conférence su xale yi ku ne la jox kado am déet li ma sol ci cadeau yi la rafetu sërif ak keneen ak keneen ak keneen ak keneen sa bos nee na la woon tey la la koy jox ana maawo waa kenn na cadeau yi jege si am na fi ñetti kado yu ñu war a joxe sa kado lañ lay jox ak cadeau bu ñu war a jox Babacar ak beneen kado kon Babacar yal na yàlla fay la Chérif ñoo ngi nuyu ñi nga àndal yëpp Mansour ñoo ngi lay nuyu bu baax di la ziar di ñaanal yàlla tamit sa waajur yàlla na yàlla teeroo ko yërmandeem yàlla mën na ko yàlla ñu ko neel Pape loolu ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziara su ko defee kaddu yi. mu ñaan ci ñaanu xaas ndax yàlla àggale ko ndax ndax déwén ñu bëgg faa gàmmoo ci kër ga bu ciment manqué bu feet manqué bu dara manqué ba kër gi mel ni mu war a mel ngir bu déwénee ñu dem Chérif ñaanal boo ñaanee mu am de xam naa la taala ñu ngi lay bu baax Babacar ku baax la Chérif gis nga kii sama nijaay ji sama goro ma nga dëkk ba Tiba euh, euh, euh, dëkk ba. ah waaw na am problème. ñun nag su Babacar sunu Babacar la ndax moo ñëw fekk ñu loolu kenn defarul mu defarul ñu ko bépp daayira buy daayira Tijaan sa rêve mooy nga am kër Tiwaawan te Babacar yombal nañ ko. kon Babacar ñu ngi lay sant di la gërëm di sant suñu yaay mère Naar Ndiaye xaalis bu bari bi ñu yónnee ci programme bi aussi gis nañ ko yow it ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax di la ñaanal yàlla suñu borom yàlla na yàlla defal la wér ci barke bi salaay salaam may da gudd fan ak wér gi yaram kon bu ko defee rek papa Kase mi nga xamante ni moom mooy suñu daay daayira moom la ñuy woo mu joxul ñu Babacar kado bii parce que amuñu ko gën a rëy moom ci daaj ku ko gën a rëy fii ci daayira

buñ ci amee tey lépp luñ ci mos ngir yàlla ak moom ndax bu ñu ko waxul woon bu ñu sama la teewoo di teg ci loolu bi nag kilifa yi ñëpp muy Chérif Ibrahima Aïdara Tidiane ndax fi ñu yoroo di kër Cheikh Sidi Hadji Malick ñoom de sëriif bu ñuy gis summi nuñu seen dàll ndax xat yi moo xori si léppay sëriif yi yépp lu ñuy jiital ci seen mbir bu ma ànd ak yee sama soxna ci kër sëriñ Pat ca kaw lay woo Ibrahima Gaye ni ko waxal sëriif ay dara ni ko bu ma summi dàllaam man danaa sumi sama dàll mais ay Aïcha Aïdara moom du sumi dàllam ba ci biir saalam kon kooka xam na kuy sërif ndax kii toog tey bu juloon sàngara di ko naan yàlla du ko topp ëllëg jigéen ñi ci àdduna bi yépp bu leen fotoon këram yàlla du ko topp ëllëg alal gi nekk ci poos ni ñëpp bu ko jëloon yàlla du ko topp ëllëg te li ma wax xam na ko képp ko bokk ci calal googu yàlla toppul sa dara ëllëg nga naan sàngara nga def lu la neex yàlla toppul ko ëllëg ñoom sawee nañu ba pare loolu moo am ci sërif yi naka ñépp xam yàlla topp leen dara ëllëg lu ñu def nga mën ci bëtam kooku yonent bi soto yonent bi rek moo ko am keneen amu ko wëlu yu amu ko xut bu amu ko sërif rek moo am martaba boobu yàlla topp leen dara ëllëg lu leen neex def waaw kon bu toogee suñu biir ñu war sant yàlla bu baax a baax a baax a baax lu ñu fi ñaan tey yàlla dana ko nangu ah di sant sunu yaay ji toog ndax yi ci xew yépp dégg naa ko na bari seen affaire na ku jara samp kon samp ko te yàlla jox na leen yoo xam ni bu ngeen wéetee ak seen boroom bu ngeen ko waxee mu def ko kon am na doomu aadama yoo xam ni bu la ko yàlla joxee mu nekk sa sa biir njaboot waaye bul bul seet dara sampal mu taxaw ku baax nga nii ku am yërmande ngi nii ku mën dimbali taalibe ngi nii loo ci wax rek am na loo bàyyi te am na ngërëmal way juróom koo ko neexee ñaanal nag ñuy nuyu alaaji Masila Kan bu baax di sunu mbokk di sunu mbokk taalibe di suñu xarit di sunu ostaas ku mës bëgg lu baax lu mu bëgg fu mu jëm àggugu fa ndax mag mu woon sa Pikine ma xool ko rek sopp ko ni yaay nekk sunu moniteur daayira muy njëw nekk moniteur daayira ba fukki at ak nangam ci daayatul mu tarsi diina wala mu tarsi daati waaye am na ñoo xam ni xëjuñu ci gannaaw kenn fu ñu jaar rek pacc ci la bokk naa la ko wax ba tax na ñu ngi sant mbokk yu fi dajee yëpp lii Babacar Diallo def nag nu ñëpp kenn ku nekk war ngaa ñaan am lu mel na lu mu def bàyyi doom bu nekk sa sa gannaaw di la defal ñaan wax naa ko sànq bu ñu jël ci bis ba pare te lu ñu war a gën a bàyyi xel mooy bis bu ñuy dajeek sunu borom. gis nga damay añ ba pare wala damay danaa reer ba pare ñëw yooyu yëpp nax sa bopp la kenn ku nekk war ngaa waajal sa bopp bis bi ngay dajeek sa borom boo xoolee armeel yi bu nit ñi duggee bay génn nu ñuy parax paraxee kii nga gënoon mën a dimbali wala kii nga gënoon a joge muy jëkkante oto yi kan moo fay des sa jëf kon war nañoo xoolaat suñu bopp bu baax nu ñuy doxalee te du jaas ndax boroom téere ba wax na ko ali daxru ndax jamono yati bu dana neex intaaran naaw na xuró buñ bàquñ ba wa jaaxatu ma dikk ba do sa ganaam yutu di wutu na solo mawta ndawal dee mu ne araka gis na la naa si tal mawta ngay fay fàtte fàtte fàttulu ndee wal mawta ndee mawri du rotuwaay la fa li kulli ali ñeen la kenn képp ci nun mel ne baxri mamaati ci géeju ndeegu na si buñ la doo ko jëlili sa jabar doo ko jëlili sa doom doo ko jëlili sa xarit soxna si nga gënoon nopp bu dee ñëwee géej gi Cheikh Laaji Malik nee na moom mooy fay jëli boppam kon war nañu bàyyi suñu xel suñu digganteeg suñu boroom bàyyi xel suñu digganteeg suñuy dëkkandoo a ah, duuma guddal ndax dafa guddi ba pare ndax ku toog ku mel ne Cherif Tidiane Aidara waroo sax wax xanaa fekkee muccul te nit sëriñ Babacar Si dafa ni nit ki su la dimbalee te tudduloo ko si biiri bokkam buy lim noonam na la ci jiital dama nekk ci sama limi nii muy def ma koy def ca waalo yéen seeti youtube bi mi ngi ca wala mu nekk si facebook bi te moom mii moo ko ci dugal nag wu ñu fa rendi terele ko gan ya moom mii la nga wax si wari boobu man yaakaar naa ne woon ne man rek lay wari nag wu ñu faneen di wa añu ñu fa togg bi laa ila si laa ilaha illa moom mii moo ko fa def ak yeneen ak yeneen ak yeneen man nag dama yaakaar ne woon ni man rek lay wari <laughs> waaw moo tax ku baax la moo tax ñuy ñaan yàlla sërif man li ma am ci sërif ëpp na 30 xam naa leen bu baax ndax jàngal lu ñu ma la sawaar bis bu bëggee mu samp mu samp ñu ngi lay ñaan samp ko mu nekk milliardaire ci kanamu ñépp mucc ci cet mucc ci bëj mucc ci lépp loo xam ne gàllankoor la man nga ko billaahi wallaahi tallaahi sa barke maam boo sis taxawee mu nekk te ñaan naa la ko ndax xam naa li ma wax kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di baalu àq ñëpp di wax ni ah alaaji ma si la silla Ibrahima Aïdara Sërif Tijaan yi li ma bëgg a wax ci moom lépp yaa ma ko gën a xam dama lay bàyyee nga àggale ko ndax li seen maam li Cheikh ma Malik wax ci ñoom te li yàlla doggu ci ñoom ñu topp leen ko yaa ma gën a xam bind ba fa tabaarakallaahu ñu ngi sant yàlla bu baax di gërëm yàlla bu ñu bokkee moom jataay di kontaan nag tey di bëgg ndax sama xarit la. dama ko sopp ma yëg sama taaw ki bu tuddee Serigne Babacar Sy mu sopp moom nag ka soppa soppa na ko. wallaay dëgg la ka ma soppa rek soppa na ko. xarit ba ma am nangu na ko ci man ngi nii toog xarit ba ma am fexee na ba nangu ko ci man waaye ba ma déggee ni Chérif Ibrahima Tidiane yi ak Serigne Babacar tabarkalla macha allah dama ci kontaan ba bëgg ma ne ko nag. toppal bu baax sàmmal bu baax bul fokkastolu bul jàdd fu mu la teg toogal foofu boo bis bu bu paree ci yow ba ne la demal foo taxaw da nga am ndam maa ko wax mi ni toog te nag doom jëma gërëm la fu mu nekk su ma ko téléphoné lu mu mën jàpp su mu nekka wàññeeku léegi moo ñeeku bu demoon bay bëgg tuyaawan ma ne ko bul dugg moo waññeeku mosuma solol ci dara aw ba benn xiliyaat ci moom fu mu mën a dem lu mu gudd guddi xam naa ni ci li neex yàlla neex yonent bi tariix bi la nekk mosuma ko àttee xeex yi xale yi def di du xaanantu mosu see jaar mi ngi nii ku yàlla baaxal la man damay am aajo ma woo ko jël aslëf ni ko defal ma ñaan ñetti fan lay am bal ba tàkk sant naa ko gërëm naa ko fokk ma wax la ko tey tey laa am occasion bi wax la ko boo ko gisee foofa rek xamal ni mën nga gis kon nag salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. balaa balaa xaaj ma si la di wax kañ ñaanalal ñëpp. Ah, nu jàng fatiha salaatul fatihi. kenn du jàng yaay jàng. auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani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 inna allaha wa malaikatu salluuna ala nabi yaa ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallama taslima sallallahu taala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin jërëjëf Babacar dañuy présenter rek monsieur le maire mooy doog a agsi léegi ñu présenter mbooloo mi pour mbooloo mi yëpp xam ko jërëjëf jële nuyul ñu ko boo gisee ma wax lii jërëjëf alxaaji Suleymaan dimbali nga ñépp maa fekkee kenn dentaliwuma duma tudd nag turam fonctionnaire la mu ngi ci réew mi dem na retraite bi muy nekk ci digg dooleem di ku yàlla baaxal it nag yor ndomboy tànk ci réew mi boobu mu ngi yor ndombo tànk yooyu le mu ñëw ci kër Cheikhul Hadj Abdoul Aziz fii ci Gueule Tapée kenn nettaliwuma maa fekkee ne ko papa mu ne ko am mu ne ko yaa ma mayoon tariqa bi soxna sii ma àndal yaa ma ko mayoon doom jii ma am ci la juddu jàng na ba mën jàng yàlla suturaal na ko am na fu muy liggéeyee weer wi mu njëkk a fayeku nag mu ngi nii dama ne ko duma ko lekk sa ndey du ko lekk sëriñ Abdu lañ koy yóbbu ndax su ma nekkee sa ndey nekk sëriñ du la daldi ne ko góor gi mu ne mu ne ko kii de tey laa la wax ne lii mooy premier salaire am mu ne ko mu ne ko kon xam nga ne li may wax taxut xaalis taxut mu ne mu ne ko waaye dama ko gërëm ba ca kanam yàlla maa ko jur waaye gërëm naa ko ndeyam jii ma àndalit gërëm na ko ngërmaande googu nag doyuñ ci moo tax ma ne ko sa premier salaire duma ko lekk sa ndey du ko lekk nañ ko jox ki maye woon sa ndey te ki tax ma nekk te mooy yow sa ñabdu kon nag weer wii la njëkk a feye ko ci dundam mu ngi nga ñaanal ko yàlla góor gi ne ñett ñett ñett wàcc ci suuf ne ko doom ñaanal ma ba noppi ma di ma déggati tey kum ndeyam ak baayam gërëm ma déggati tey man abdu ku ndeyam ak baayam gërëm te yàlla wax yonent bi wax ne ku sa ndey gërëm sa baay gërëm la loo ñaan mu nangu doom duma ñaan ñaanal ba noppi toog ci suuf moom sëñ abdu tàllal ko ay loxoom waa xale bi ñaan ba noppi góor gi raay door door a jël xaalis bi téye ne ko xawma loo defal yàlla ba am lii de waaye am nga lu ñépp bëgg man ab du bëgg naa ko keneen bëgg na ko kon nag lii tey fexeel ba bu yàqu jëlaat enveloppe bi jox ko xale bi ne ko sukkaatal yeesalaat sa njureel ci ñoom ñaar ne ko jox ko sa baay moo yilif sa ndey daldi ne waa ji bu ko delloo de man Abdou def naa ci demande bi ma bëgg yépp ci moom demande bi ma bëgg yépp ci moom def naa ko ci bu ko delloo boo demee ba ci kër ga nag yaa soxna si ngeen séddoo ko man du ma féetewoo ñaan waaye demande bi ma soxla yépp ci gone gi mu ne mu ne def naa ko ci lii bu ko delloo waa ji jël enveloppe bi defaat ci poche am sëñ du door a commencé waxtaan waxtaan ak ñoom lu yàgg ci àqi way jur waxtaan ci lu yàgg <coughs> door ñu jàng faatiha salaatul faatiha ci loolu laa bëggoon ñun ñëpp ñu profitoo ci ca boxu sëñ Abdu booba lii yaakaar naa du gënt te la may nettali ci sëñ Abdu xëy na am na ñu ko fekkewuloon waaye lii tey ñi ko fekkee ci tant bi ñëpp a ngi toog mu gërëm doomam wax ci moom li mu wax ah, duñ profitoo ci moom mu ñaanal ñu yàlla te lu jafe la ci jamono bii ñu toll nit ñi daanaka amatuñ kilifa. doom yi daanaka nangootuñ ko leen jur biti lañ nangu mu jur leen waaye biir kër gi kenn du leen fa jur kon nag Babacar la sëñ Abdu waxoon kooka laa lay wax yal na lii bum soppeekoo ci nekk leneen yal na wéy ba faw yal na wéy ba faw te yal na ci laawaale ñëpp nag yal na ci laawaale ñëpp waaye yow it la ma jort woon ci yow yëpp am na moom yàgg nañu xame fa tabaarakallaahu ma xam ko rek ci yiw bëgg yàlla bëgg yonent bi bëgg tariixa bi bëgg kër Seydi Hadji Malick féete woo Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum loolu xam nañ ko mu di ñu bàyyi xel ñu di ko bàyyi xel fu mu mën a nekk ba léegi maa ngi koy wax bi ma lay laaj Babacar mu ne ma yaa nga Gabon duma dëñ di ko laajte di nemmeeku ci lu mu nekk ak fu mu nekk ndax nit bu la soppee Serigne Abdou daf daan wax ne yëg rek nga koy fayee maa la raw fayeetu ko yëg rek kon nag bu la neexoon bu la neexoon noppi bàyyi ba dem ñibbi wéet ak sa waa kër yépp ne leen gërëm naa Babacar te amuloo Babacar rek waaye ñaax nga nag ña ca des pour ñu am li Babacar am tey lii mu am tey du lu tuuti de ku jàpp ne lu tuuti la moo raw xale bu mokkal alxuraan mokkal alxuraan li muy rëy rëy lii ko gën a rëy ndax nit mokkal na alxuraan yàlla boole kook alxuraan jël alak wuy jur boo amul ngërëmam loo duggati du baax ridallahi fi ridal waliday ridallahi fi ridal waliday booba xadis la te gaa yi léegi bu loolu xadis boo wax sax ñu ne dañ ko jam waaye ñu dem ci alxuraan yàlla ko wax man waxuma ko xanaa alxuraan ja ñu jàng ca màkk ak bii yëpp benn la amul benn xilaaf wabil waali waaw ubudullah wala tushriku bihi shay'an waaw maa ngi ñëw ubudullah wala tushriku bihi shay'an booboo jiitu wabil waalidayni dafa wax babil wabil sheykhi wabil ustaazi wabil tariqati waxu ko dafa ne wabil waalidayni ihsaanan yàlla ni mu fiiree ni mu bañee ku dend ak moom ne jaamu leen ma te bu leen ma bokkaaleeg dara ne su ngeen cay noppi rek seen ñaari way jur yi ihsaanan mooy nu mu gën a rafetee rek defal te amalu ko limit bi xaaj ma si la indi door a ñëw wa qada rabbuka an laa taabudu illa iyaahu booboo gën a garaaw ndax dafa setti wa qadaa rabbuka an laa taabudu illa iyaahu wa bil walidayni ixsaanan imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma aw kilaahuma falaa taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan kariman waxfid lahuma janaaxa dulli min arrahma wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayaani saxiira wolof dafa ne jërëjëf baat bu gàtt la waaye ku defut dara du ko dégg jërëjëf baat bu gàtt la waaye ku deful dara du ko dikk ñun ñëpp nag war na ñu fexe a ah, man de gis naa koo xam ne yàggul dara wax naa man bene ma bu dee woon ma jël te doomam wax naa man bene ma su dee woon ma jël te maa ko jur te li may wax wuy juróom moo ma ko moo ma koy wax ci doomam kañ mu ne maa ngi lay géñal ci yàlla ay dara su ma xamoon ñaan woo xam ne su ma ko ñaanoon tey mu dee ma ñaan ko tey ndax deem moo gën ci man wax naa ko fi am na koo xam ne milliardaire la moo tax bi may wax milliardaire nangu naa waaye am naa tuuti réserve te kooku dama ko xam ñu jaar fu bari maag moom déglu leen li may wax xaajuma si la bu baax milliardaire la su ma ko tuddoon ñëpp daw ñi ëpp alal tey ci Sénégal ci la bokk duma tudd turam nag ñi ëpp alal tey ci Sénégal fii ci la bokk ci milliardaires yi la bokk société bi mu yor bu ma ko tuddoon ñépp xam nañ ko yàgg naa ko wax buy tukki xaaj ma si la xam nga trois mois yu ne luñ koy voteel deux cent millions par trois mois loolu lay jëlee avion première classe hôtel yi muy dal moom lay loolu pour train de vie tukkeem yi rek la jëndee na oto Amérique 300 millions ne dafa yàkkamte oto bi avion spécial moo yeb oto bi indi ko million millions la fay avion bi muy 400 millions de douanement 50 millions muy 450 millions ci benn oto ñetti fan la ko dawar gaare ko boo demee këram parking oto la yor. moo li ma leen di wax fii la nekk senegal de waaye déglu leen rek ndeyam kilifa gu mag la ci réew mi ndomba tànk bu ne ndeyam takk na ko ma xam ko ndeyam moo ma ne léegi mu mat fukki at nuyuwuma déglu leen li may wax kon li su damay dëggal li alxaaji Suleymaan def du lu tuuti ndeyam moo ma ne léegi mu man mat fukki ak yu ma nuyuwut mu ne ma ay rakkam a ngi fi am na ñuy liggéey sax ci société am bu yëgoon ne ñu ngi fay liggéey mu dàq leen te ñoo bokk ndey ak baay mu ne waaye yëgul ne ñu ngi fay liggéey bi ma ndeyam waxee loolu ma wax ak moom wuyuwuma sax yàlla nattu ko muy wàcc ci ascenseur am kenn xamut lu xew de bi muy wàcc rek la paralysé ci puus-puus lay toog ñu jël ko évacuer ko fi ne ñemeetul dugg ci réew mi te kenn xamut lu tax sëñ bi way jur du caaxaan waaye malheureusement ndeyam moom yàlla suturaal na ko soxlaalu ko dara waaye lu gën a rafet fukki at ndeyam nee teguma ko bët te mu ngi ci dëkk bi yor lu dul jeex kon Babacar loo góorgóorlu woon rek yokk ko ñun ñëppit nag ñu jëlee ci leçon ku ci am njobootit ah defal ni xaaji Suleymaan def ndax lii mën na jur lu bari ci réew mi tey mën na jur lu bari ci gox bii ñu nekk tey moo gënoon sax mu noppiwaale ko dem lii tey mën naa régler lu bare bare bare bari cay ci réew mi mën na régler lu bari ci diine ji ndax wayjur moo wax ci doomam boo demee ci suratu luqmaan lu ko indi wa iz yaizu wa iz qaala luqmaanu li ibnihi wa huwa yaizuhu yaa bunayya ba wax ja wa iz li ibnihi wa huwa yaizuhu yaa bunayya wax nañ ne dafa teg àndaaru dugub yaa bu mu ko wax rek jël benn pepp teg fële yaa bunayya bu mu ko wax rek jël benn pepp teg fële bi àndaaru dugub bi di jeex la doom ji xaacu rek faatu ci ay ndënkaane yu mu ko doon dënk muy Luqmaan te Luqmaan du yonent nit ku baax la rek Seydi Hadji Malick nee na ko yàlla baaxal la bañ daanaka ñu classé ko ci yonent yi kon Babacar ah man dey bàyyi woon naa la xel sama doom nga fonkoon naa la waaye bu doon benn def naa ko fukk tey bu doon fukk def naa ko téeméer bu doon téeméer def naa ko junni bu doon junni xamatuma fu mu yem ñu ngi lay sant xaji Souleymane yow it eh, laay joxe mas xaj masi la ñun ñëpp nañ ko dégg masi xaj masi laa ko wax wa qadaa rabbuka an laa taabudu illa iyaahu yàlla ne man sa borom mi leen bind maa dogal ne nangeen ma jaamu man dong kott rekk te bu leen ma bokkaaleeg dara waaye wa boo ca fa noppee bil walidayni sa ñaari way jur mu ne ihsaanan nanga rafetal sëriñ Cheikh si nag moo ne ihsaanu yàlla kenn mënu koo am mu ne kàmb gu vide la dangay am da seet loo am nga def ci bu yàggee borom bor bi mooy xool ne góorgóorlu nga jàmbaar nga mu ne may naa la li ci des mu ne dangay def rek loo am dawal ci wa bil walidayni ihsaanan mu ne imma yablughanna indaka al kibaru comme kiito yaay naar mi mu ne boo amee ci ñoom ñaar ñooñu say ñaari way jur kenn ci ñoom màggat màggat aw kilaahuma wala ñoom ñaar sax ñoom ñépp ñu àndandoor màggat ci biir kër gi wala kenn màggat kenn ka dem comme nii mu ne ah bu mu tax nga ne uffin wala taqul lahuma uffin uffin nag dafa am baat yoo xam ne ci alquran wolof amu ko benn piri amu ko arab rekk ku mën a firi baatu uff ci la bokk baatu rafasu ci la bokk fala rafasa walla fusuuqa wala jidaala fil xajji wolof mënu ko firi amul baat bi benn làng amu ko arab rek ko am ar rafasu mooy lépp looy def mu jural la mbóosóor rek rafasu la uf lépp loo xam ne boo ko defee nit ku baax bu ko gisee jippi la rek uf la bu dee ci way jur nag mooy bul xeelu bul regeju bul ciipatu bul piis bul sànn loxo yépp ci uf la bokk bul onk bul onk onk xol yépp ci uf la bokk yàlla ne lum la mën a def wala taqul lahuma uffin bu ko sa xol bi yëg bu ko sa cër yi wone mooy uf wala taqul lahuma uffin mu ne ah loolu laa lay tere nag kon la ca des waxe noppi wala tanharhuma bu leen leen gëdd mukk wala tanharhuma bu leen leen gëdd mukk ñoom seen ñaari waajur te loolu la nit ñi xewal waaye yaay nag yow dangaa lëj le sa yaay tey la lëj le ba mu la ëmbee di doxantu lëj la wutoon ba mu lay waaje wasin ba kanam xaj ci lëj la wutoon ba muy jàpp sa loxo di la yóbbu ngay jàngi lëj la wutoon ba mu lay nàmpal ngay ñeew ñeew yi di caw ci kawam di dem cabine ci kawam muy mucc say baqata bañ mu fatt la étouffé la booba lëj lewutoon tey bi nga maquillé woo mu rafet yow doom bu góor nga costume mu mu jekk nga sol say montante génn mu ne la doom kaay nga ne ko yaay nag da ngaa lëj le damay génn yaa bon yaa bon amoo looy wax sa lay yaay lu dul da ngaa lëj le yàlla ne wala tanharhuma bu leen leen gëdd mukk lu ci topp wa qul lahuma qawlan kariman ñu ne booy dem bay wax ñoom nanga nga wax ak ñoom wax ju tedd sëriñ Mansour mooy taawu sëriñ Cheikh moo ko nettali maa ngi toog kenn nettaliwu ma sama wëllëre la xaaj ma seli bii xam na sama nijaay la boole ci mook sëriñ Moustapha responsable moral mu ne dafa am bés yaayam woo ko muy wuy si ne ko naam yaay ndeke Serigne Cheikh a koy dégg ne ko Mansour lu ma dégg ngay wax yaay mu ne ko mu ne ko ku narta tekki mooy wax yaay bu ma ko déggati del wax saa ndey bu ma déggati mukk nga ne yaay ku narta tekki mooy wax yaay del wax saa ndey waaw dinaa koy wax nag mama xam nga lu ciy topp ci maa foo fekk mama ju bari rek ci moo ciy topp wala tanharhuma waqul lahuma qawlan kariman yàlla ne nang leen di wax wax ju tedd wax ju tedd xam nga mooy lan bu mu am sax luy niru lu ñagas waxul wax ju nooy de wax ju tedd tedd moo gën a baax nooy fële xawlan layyinan la waxoon na ndax buur la gis nga bi muy waajur kariman day ànd ak ngay teral sa yaay moo tax wax ji li muy teddee teraanga ji koy jiitu moo tax mu ne xawlan kariman mu ne boo ca yeggee nag wax fit lahuma janaaxa zulli min arrahma am jëkkër ju rafet bu mu tax nga noote sa ndey liggéey bu baax bu mu tax nga noote sa ndey yaay monsieur la maire mu ne wàcceel ci suuf Chérif Ibrahima dara ñëpp yow la ñuy déglu mu ne wàcceel ci suuf wax fit lahuma janaaxa zulli wàcceel sa mbaggu torox tànge la yàlla wax mooy nga toroxlul say ñaari way jur waxfid lahuma janaaxa dulli min arrahma mu ne nga àndale ko yërmande waxfid janaax janaaxa dulli min arrahma mu ne soo amul loo leen jox ndax maa la ko nattoo man yàlla waxul deel wax boo jullee ba noppi rabbi buur sama irham yal na nga yërëm huma samay ñaari way jur kama naka rabba lañ ma yare woon yaa nii saxiiran ca ba may ndaw nañ ma yare woon yërëm ma yàlla na nga leen yërëmee noonu dinaa koy wax ne kuy dem Italie ngir sàkk loo terale say njee way jur wala Espagne wala France wala fu mu mën a doon njëkkee ko fii senegal soo amul loo leen jox dëkkal guddi gu jot nga naafi la ñaari ràkk rek sëlmal ne yaay ne yàlla man de sama ndey sama baay laa bëgg a teral xaw ma fu may jaar ba teral leen yàlla jox may ma wërsëg wu ma teralee sama ndey ak sama baay balaa ñoo làqu wala yow nga dee dinga am loo leen terale ñun ñëpp nañ ci góor-góor fa tabaarakallaahu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ajjannatu taxta aqdaami ummahatikum nee na ajjana mu ci seen suufu tànku ndey yi lu nekk ci sa suufu tànku ndey yu xamtalu moo la koy may ah da ngay jël sa nopp ndeyjoor bi teg ci suuf sa yaay jël tànku càmmoñam teg ci sa noppu càmmoñ di waxtaan ak yow te doo ne u uh, moo lay may barke su dul loolu doo ko am tey doo ko am ëllëg xaajuma si la kàddu ko